sëriñ bi président Macky mi ngi lay ziar di ndokkeel ci bés bu mag bi ñi di fàttaliku wooteeb maam Seydina Limaamu Laay al-Mahdiyu alayhi salaam maam Limaamu yàlla moo ko tànnal ñaari waay juróom yu sell mu di maam Alassane Thiaw ak maam Kumba yàlla def mu feeñ fii ci sowu ci Yoff wax nañ ne mi ngi feeñ ci atum 1843 dellu ci boroomam 1909 dundam yépp nekk juróom benn fukki ak juróom benn lépp dellu ci turu yàlla bi nga xam ne mooy allahu muy tegtale nitu yàlla ba dundam gépp dëppoo ak turu yàlla mu nekkoon ku maandu ku dit ñi bàyyi woon xel jamonoog ndawam ba mu tollee ci liggéey daawul lekk lu araam dafa daan wut lu lew di ko lekk maam limaamu ku néewoon ay wax la te bari njariñ lool mu woote wootem bi ajiboo daay daaya laay wuyu ji leen wooteeb yàlla ni ko alxuraan waxee ci atum 1884 lépp looy woote ba mu am téeméeri at ak fanweer ak juróom-ñett ba noppi di delleek wooteeb yàlla la ku amoon doxalin bu rafet na ab yarekat la woon ku juboo woon ak kilifay diine yépp bokk na ci li ko yàlla dimbalee mu feeñ fii ci capital bi kon mel na ni ku ko wuyuwul ci baatin wuyu ko ci zahir ndax ndakaaru mooy capitalu senegal njaboot gi mu fi bàyyi ka ca jiitu woon maam Isaa ñuy sàmm li fi maam mu bàyyi woon ba mu agsi ci sëriñ Abdoulaye caw mi fi nekk ñu ñaanal ko yàlla dolli ko ak wér te bàyyi ko fii mu yàgg lool mbooleem ñi fi ñëw fay si bor moo leen fi indi ndax tariqa yépp maam mu waxal na leen loo xam ne ba tey déggatuñu ku leen ko waxalaat taalibe laayeen yi ku gis sen melokaan seen colin seen toogaay xam ñu ñu yar lañu yar boobu dalal suñu xel ci xew-xewi jamono yii ay nit di làqatu ci di xeeb li mag ñu baax ñi bàyyi ci bëgg ñoo jàngal beneen lislaam sëriñ bi président mi ngi delluwaat di feddali kóllëreem ak yow ak njabootu laayeen gépp mi ngi yeesal yéeneem itam ci lépp luy soxla si dëkk bi ak njaboot gi dana ci taxaw moom ak gouvernement def ci lu ci man-manam toll lii nag tax na ba mi ngi sàkku ngeen ñaanal ko ci barkeb borom bés bi yàlla dolli ko kàttan ak man-man ba mu àggale lépp li mu yéene ci barab du tedd bi ak ci biir Sénégal di sàkku it ngeen dolli ñaan ba jàmm akuk déggoo ci suñu biir gën a yaatu gën a sax jàmm jooju ak déggoo soxla nañu ko ci suñu diggante ak jàngalekat yi grève bi mi ngi bëgg a yàgg te jeexital yu métti la ndara am ci suñu doom yi te yaakaar nañ jéegu yi ngeen ci war a mën a def jëmmaleku ci ndax président lépp li nga xam ne lii mënoon na ko def ci ñoom def na ci bu doon suñu sago ñu ñaan ngeen ñaan ci jàngalekat yi delluwaat ci classe yi jàpp ci li leen président jox du tere ñu continuer laaj te xam ne président heure bu ko ko yàlla mën loo dina leen ko defal ginnaaw loolu coow li nga xam ne jamono yii muy mel ni luy xaajale waaye politik yi moonte day wax ju nu waxoon la ba tënk ko ci atum 2016 coow li bari na président woote na pour ñëpp juboo ñëpp waxtaan ci te am nañ yaakaar ne am nañ yaakaar ne sa ñaan mën na ci def dara kon sëriñ bi ñoo ngi ñaan yàlla mu bàyyi ñu fekkee waat déwén ak jàmm kenn bañ a manqué Sénégal yokk lii mooy li nga xam ne moo doon suma kàddu bi ma waroon a yëkkati fii ci seen kanam ci turu njiitu réew mi maa ngi baalu ak ñëpp di baalu ak ñëpp asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh